abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen man di ko jot ca tàng-tàng ba charia moom li mu bëgg dëgg-dëgg mooy góor bi nga xam ne mooy boroom kër gi na féeteeg rendi xaraw tabaskeem loolu lañ ci bëgg ah, donte xale la mën na kaa rendi bu xale bi mu xàmmee mun na rendi dont jigéen la góor nekk fa wala góor ñu ngi fa mënuñu moom jigéen mun naa rendil boppam xaru tabaskeem dana wér kooku ñu bàyyi ko xel bu baax a baax euh, waaye sib nañu nag ñu mu mu remplacer keneen maanaam mu wuutal keneen ki di koy rendil loolu sib nañ ko waaye su fekkee ni ngànt la bu dee moom mën na ko moom te defu ko bu dee ngànt dafa am nag ndax indi dara tu tubihul maxsuraat bu ngànt amee moom euh, la ñu bañoon dañ koy nangu waa du fekkee nag moom ngant amul mën na rend boppam bu ngant amee nag mun na ra mun na wuutal keneen mu defal ko loola waaye bëgg nañu donte dafa wuutal it na teew ba jamono bi ñu koy rendi ndax euh, sukkandiku ci li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon naa faatima doom ja mu ne ko na taxaw fekkee jamono bi ñuy rendi sa xaru tabaski nga seede ko ndax deret bi njëkk tuuru ci suuf ci la yàlla la jéggal sa bàkkaar yu njëkk yéeg yu mujj yi Euh, dañuy chartal a dañuy conditionné ki nga xam ne moom mooy moom mooy wutal keneen di koy rendil na fekk ki ngay ki leen ki ngay rendiloo jullit la xam na mun na wax bisimilah yi mën na wax yëpp te rend it du doon gan lu dul gannaaw rendik imaam kenn du rendil fekk imaam rendigul képp ku rendi lu jiitu imaam di rendi amuloo tabaski faw nga baamuwaat ko euh, naka noonu it wala nga tolloog imaam imaam di rendi ngay rendi loolu tamit bëgguñu ko sib nañ ko. ku amul imam nag da ngay seet ñi nga xam ne ñoo sësoog yow wala nga xaar ba xam ne ñu mag ñi ci dëkk bi rendi nañu ngeen doog a rendi loolu ñu bàyyi ko xel kenn du rendi guddi ku rendi guddi amuloo amuloo amuloo tabaski ndax euh, charte bi bëccëg lañ ko wax moo tax beneen bi mooy euh, tabaski euh, tabaski ñetti fan la bés bu njëkk bi boo amee rendil ku amul nag danga wut amuloo euh, ba midi wala une heure borom bu xam-xam yi nee nañu euh, sopp nañu nga muñ ba ñaareelu bés ba boo amee nga bàyyi ba jant bi fenk heure bi ñu julli woon nga daal di rendi sab xar loolu mun naa nekk loolu wax nañ ko euh, beneen bi mooy sopp nañ ci ki nga xamante ni moom mooy rendi li mu rendi mu jublul ko pénku bu mu jublul ko pénku suy rendi it nañ ko jàppal ñaadal ko bu baax a baax na wax bismillaahi loolu bu ko waxoon rek dina mat mu teg paaka bi rendi daggaale ñaari ñaari ñaari ñaari siddit yi ak put bi mu ngoog wallaahu bar su ko ci boolee baax na bismillaahi wallaahu akbar baax na euh, su ci doolee rabbana taqabbal minna yàlla yàlla ngi nangul yit baax na loolu dara nekku ci léegi nag kii dafa rendi su fekkee da ngaa rendi te waxu bismillaahi ngir yàqamti mel ni ab njaayeen wala njóobeen walla ki sant jaag wala Euh, jëng ngir jaxasoo rek nga fàtte wax bisimilah yi ah bul tiit de xar boobu mën nañu kaa lekk ndax danga kaa fàtte moo tax ndax yonent bi nee na sama xeet dañ leen di baal li ñuy fàtte waaye su fekkee ne moo ko tey bàyyi bisimilah bi waxu ko nag xar boobu moom kenn du ko lekk meddi la bu nga ko lekkee lekk ngeen musiba. rendi nag comme ni ma la waxee léegi euh, put bi ngay dagg ak ñaari siddit yi ko wër su fekkoon ne tey ji dangaa dagg put bi kese bàyyi ñaari siddit yi wala dagg benn siddit bi ba daggaale put bi. mu des benn euh, loolu mu kenn du ko lekk ci lu borom xam-xam sukkandiku loolu kenn du ko lekk moom wa ala kulli xaal li am ba am mooy da ngay ren da ngay ren dagg put bi dagg beneen sidd bi ci kaw ak bi féete ci suuf yëpp dangay wàcc sa loxo ba ci suufa suuf ndaxam kat bu su fekkoon ne tey jii jàppaluñ la xar bi wala ñaadaluñ la ko ñaada bu baax su nga tàmbalee dagg benn sidd bi wala benn wala nga dagg put bi euh, sa loxo yëkkatiku nga tegaat sa loxo Euh, yëngal paax bi maanaa riiti ko ba dagg ah boobu nag duñ ko duñ ko lekk ndax dafay araam mm, meddi lay doon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax moo xam nag yëkkati loxo bi moom moo ko tànnal boppam wala lor moo tax waaw su ko si dellu si waatee nag lu lu jege nag a dafa yëkkati ko tuuti rek mu delloo ko ni mu gën a gaawee boobu nag mun nañ kaa lekk moom waaye su fekkee yëkkati ko na ba mu taxaw naan jàpp leen jàpp leen loolu moom kenn du bu kenn du ko lekk ndax médd lay doon kon yéen rendikat yi bàyyi leen ci xel bu baax baax nañ leen jàppal soit que ñu takk tànk yi ñeent tànk yi ba mu dëgër kenn féete sa boor nii am na ñoo xam ne bu deret bi commencé tis rek dañuy daal di dellu gannaaw su ko defee nag wi mm, rendi ba du baax loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon xar euh, nañ koy dañ koy rendi ku rendi nag ba rendi ci ci ca ca ndong la xar boobu kenn du ko lekk euh, gëléem ak nag mun nañ koo loj lo euh, nag dañ mun nañ ko loj mun nañ ko rendi mun nañ ko lekk waaye gëléem moom dañ koy loj kenn du ko rendi buñ ko rendi kenn du ko lekk béy ak xar dañ koy rendi kenn du ko loj suñ ko suñ ko lojee tabaarakalla kenn du ko lekk médd lay doon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax léegi nag kii dafa rendi xar bu jigéen wala béy bu jigéen léegi nag waaye dafa ëmboon doom ji dem na ba mët ba am karaw rendi yaay ji mooy rendi waale moom mooy euh, borom sariya nee nañu moom mooy rendi waale na doom ja rendi yaay ji mooy yóbbaale doom jooju kon bu génnee mën nga kaa boole ci ci yàpp bi rek waaw gaa yi xéwloo ko loolu dara nekku ci su fekkee ka sax na karaw beneen bi mooy. Euh, tabaski kenn du si jaay dara ñi njëkk jaar ci mbedd yi di wax opération tabaski su fekkee mën nga leen may der bi kooku may la ñu wax wala nga teg ko foofu mayoo jaayoo ko amaa nag yow yaa ko jël jaay ko kooku nag moom yow li ñuy compter mooy amuloo tabaski am na peut yu ko indi kon kenn du jaay yàpp bi kenn du jaay der bi kenn du jaay euh, dara ci siddu di waaw kon daal li ñuy bëgg mooy boroom na ci lekk na ci saraxe na ci maye na ci denc. waaw lii daal lañuy bëgg waaye leneen bëgguñu ko ci lekk saraxe maye denc yii daal mu nga ko ci def mu ngoog léegi nag dafa am tuuti rek lu ñuy leeral ndax léeg-léeg day faral di am parce que am na ñoo xam ne seen ngénte day tombe ak tabaski su fekkee ne dangaa am tabaski am tudd benn xar nga ame da ci yéene tabaski bi yéene waale ci tudd bi kooku la dina wér waaye su fekkoon yow sa yéene mooy damay damay tudd xar mi xara tudd la ma yóbbaale ci tabaski bi kooku du wér lii wér mooy damay tabaski yóbbuwaale ci yéene euh, tudd bi ko loxo de mun naa wér nañ ci bàyyi xel bu baax su fekkee ne koo xamante ne bi am na ngénte wala lu mel noonu mu taseeg moom noonu la koy doxale mu wér kon ci tënk daal mooy yàlla daal nee na ñi muy nangul mooy ñi ko ragal innamaa yataqabbalullahu minal muttaqiin kon yal nañu yàlla nangul yal nañ ko defee niñ ko ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale ñu defee ko noonu waaye nag yàlla moom soxlawul yàpp bi soxlawul deret bi li mu rek mooy ragal yàlla bi nekk ci suñu xol diggal ñu def loolu la loolu la bëgg si ñun moo tax mu ne ci wax ci alquran lan yanaala llaahu luhuumuhaa wala dimaahu walaakin yanaaluhu taqwa minkum kon xadis bi yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nee na yàlla xoolul seen melokaan yi xoolul seen alal yi li muy xool mooy seen xol yi ak jëf yi ngeen di jëf ci ndiggal loolu daal la yàlla xool kon tabaski loolu lañ ci seer waaye du caagin ki ne maa ko indil samay jabar ak sama yaay ak sama papa ak yooyu déedéet moom ragal yàlla bi la yàlla soxla xoolul seen alal yi ndax da ngay puukare ne am naa ngandi xarak euh, wala ren jënd naa samay doom jënd naa samay jabar ak yooyu loolu yàlla xoolul loolu yàlla xol yi la xool ragal bi ci nekk ak jëf ji def ndigal bi loolu la yàlla santaane kon nag yàlla na yàlla boole nangul dem nangul leen nangul ñu nangul mboolem jullit yëpp na yàlla may ñu fekk waar ko ay at yu baree baree bari te yàlla dañu nangul lépp lu ñu ko ci jaamu yàlla mm, yombal mbir yëpp jàppandal lépp ñu ngi leen di jégalu baax yal na yàlla boole jégal asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu